murit moo di koo xam ni bëggul dara sëriñ moo di koo xam ni ñàkkul dara defal ab sëriñ mbaa nga def ab murit kudul ab sëriñ du murit doo dara pexeelug murit yow ba am ak murit te def lu dul lii du faj kët dara ku te bëgga dal cig cëriñ jëll ak murit doo ko man kët te doo am dara ku jéggig murit dem di yootub cëriñ dafay ñàkku yiw ñaare am amtil dara ku jëm cig cëriñ faw dox cig murit doxal cig murit boo bëggee dara lu guy rëy rëyub datt ab gif la wan sëriñ dib murit wan bu moomul dara sëriñ day bawoo cig murit dib sëriñ njegam lii amul doonagul kay dara ndaxam bépp lar bopp xolam ba gëlëf lu dul jëmmi sangam ya yoogul dara ku bëggul lu dul yàlla dëkkéb xolam narus yàlla seetub xolam gis dara ku sab xol setul wi ci yëlloo wulaa fexee laa ji kon yàlla yow sax dara wutal ndab ñu dal lay joxu wu doy te ndab lee daab xol bu bëggul dara ku bëggul lu dul yàlla fees ak njariñ akuk mucc dib lar bu ñàkkul dara damay sàkku nag ndab aku yiw fi yow ki am ndab aku yiw te bëggoo dara ku dul yow amul ndab amul wenn ñam paroo soxla yow lëf te ñàkkoo dara kon ñaan rek la ñu mën a def ñaan ko ci am dëgg jeexal. waaw koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu na ñoo ñee jëkkoon a ak moom nu tàbbi ca ñoom ànd ak ñoom jëm bu jëm mu jëme nu fu fu fu fu lañ jëmee loolu rek laay ñaan